ngor moom euh, <clears throat> maa ngi leen di nuyu ba baax sunu bokk yooyu mhm. maa ngi gis euh, defe naa sànq ma juumul demoon nañ gisanteeg porte parole euh, ahlu laayeen ñu ko wax Mamadou Lamine di kenn ci seen waajur yi waxtaan ak moom wax ko situation bi alors dafa ngor dafa nekk benn xam nga dëkk bu sosu dëkk bu sosu sosu depuis plus de quinze siècles defe naa dëkk boobu du dëkk bu ndaw du dëkk bu bees dëkk bu yàgg la bu am cosaan am vécu am histoire am nag nu mu war a mel aussi nu mu war a mel Ngor ñaari terme yoo xam ne jamono bi moo fa am ñaari terme exiguïté ak promiscuité booy romb almadi route principale bi yànja na ci gis-gis jekk na quoi. ak la ko wër nga jaari ginnaaw King Fahd ak la ca des. dem ba xuntu ba ak fa ca des yëpp yànj na waaye baa dugg ci biir ngor ca biir biir am na neneen noonu mu mel dafa am lu ko waral si àdduna dëkk warul suqaliku nit ñi dellu gannaaw dëkk du dëkk bàyyi suqaliku nit ñi ñooy suqaliku dëkk bi topp ci ce qui se passe en Ngor c'est le contraire les gens vivaient de quoi de pêche Assane kilifa bi Thierno de pêche. sàmbeen mhm. waaw léegi <clears throat> boo ñëwee Ngor ñu ne la gars ba na xëyee dañoo dem nappi léegi yow mi nga xam ne yaay responsable napp bi yow état yaa ñëw jël napp bi salfaañe ka maanaam fexe ba ña ca doon tedd mënatuñ caa tedd ndax yow si nga ay accord yoo xam ni moo tax ñooñu lañ fa doon am amatuñu ko ku xam ngor xam ni sanu yaay dañ fa daan jëli buuj ak la ca des du dëgg Assane li noo wax paañ ak la ca des paañ ak yemel noonu ah fruit de mer ñu ko daan am facilment di ci tedd tey mënatuñ ko am ñu daan am jën jën facilement di ci tedd tey mënatuñ ko am te xam-xam bay war a tax ñu génn mbirab pêche dem def defi leneen lu dul pêche xañ nga leen ko parce que école ba leen koy permettre amu fa lycée ba leen kaa permettre amu fa ni collège et dañuy obligé di paas di dem di ko wuti. ce qui est way jur ya yu jëkk ya. Mhm. bañ daan am teraanga ci napp bi. dañ daan jël alal la jox ko seen ay doom ñu dem jàngi. jàngi lycée jàngi Wakam ñii jàngi Blaise Diagne ñii jàngi Delafosse ñii jàngi des ñii jël dem centre ville ñii dem Limamoulaye ñii dem Yoff waaw boo tëjee bunt yooyu yëpp teg ci nag seen ay suuf plus de cinq cent cinquante hectares bu ñu demee bañ naan la peut-être nangam hectares ba matee trente c'est à voir lañ fa dese il y a problème boo ci boolee nag tëj leen fépp tëj moo la lan mooy dafa am espace bi ñoo soxla mënuñu am terrain football mënuñu am jumaa bu mag baa demee cimetière ab Ngor nga xool bu baax xat na tuuti na nu ñoo def léegi ña doon jàng ñenn ñi seen wayjur yi ñàkk nañu teraanga ci napp gi pauvreté bi accrue léegi ña doon joxe paas pour xale yi jàng amul ñi doon jàng bu ñu eggee fenn fii bàyyi bu nu bàyyee napp gan daan dem mu yokk seen jom amatuñ ko ñi mën a jël géej gi jël géej gi daw génn dëkk bi ña sa des lu ñuy def bu ñu xëyee toog la ni café Touba la def yi leneen ñett yi nga xam ni ngeen baal nu ci terme bi dëkkuñu fi di fa ñëw di def looloo lool parce que ngor la fa ne passé na ce qu'on voit et entend c'est autre chose mm-hmm. waaw ci biir c'est autre chose boobu lan la nguur war a def nan la war a taxawee dafa war a taxawee jaboote taxawee jaboote moo la lan moo di ne naa fexe ba ñuy promiscuité bi ñu nekkee ma génne leen ci ma génn leen ci promiscuité ne veut pas ma toxal leen kàddu googu dañu kaa dégg léeg-léeg ci ay kilifa mu njuumte du toll ni àdduna muy yoof di ngor di feneen ak feneen mhm. nga xam lébu plus de cent vingt et un villages traditionnels lébu xañ ko lépp ba mu des suufas boppam ba desul lu dul suufas boppam jàppal ni daa faat lebu yépp wax ak dégg ba desee lu dul waaye yenn waa ngoon fii dafa xat donc faw ngeen génn jàppal ne danga leen faat ñoom ñëpp wax wax ak dégg pour juste dire que oui. le ah, domaine foncier oui. le souci domanial que ce pays là boo demee ci àll bi mais lan moo taxaw ndengaleer am c'est pire encore parce que dañ leen a tooñ mm-hmm. tooñ bi nag souvent du nit mooy ñëw jël tooñ leen état mooy fekk nit ne ko jox naa la te la mu koy jox moom état moomu ko état lan la am droit def exproprier waaw mais booy exproprier nag malheureusement ou heureusement da nga kaa justifier ah yéen kat fi ngeen nekk état da kaa soxla ndax lii ak lii ak lii ñépp xam ne loolu la ñoom jóg tey nag ngor du dara lu dul restructuration la soxla ak permettre les populations la leen fa dese ak su néew ñu mën kaa jëriñoo mënuñu jël tey par exemple dëkk bu mel ni ngor man Baye Assane bu ma soxlaa kër Podor wala Matam wala Touba wala Tivaouane wala Medina dafa mënti doon ña fa dëkk laay laaj ñu jox ma waaw ñoo xam ne nag ñoom ba ñuy sosu kenn sosuwul à un certain niveau respect tuuti daf see gën. ça pose